الله أكبر الله أكبر الله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 wa qaala alayhi salaatu wassalaam man yadman lii maa bayna laxyayhi wa maa bayna rijlayhi adman lahul janna mbokk jullit yi gannaaw bu ñu sante yàlla julli sëlmal ci ab yonentam ñi ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal yàlla te muy sax ci ndigali borom bi di sori ay tereem gannaaw loolu ñu dellusi tey ci juróom-ñaari cër yooyu nga xam ne moom lañu waroon a moom lañu sant kenn ku nekk nga di ko sàmm ba tax yonent bi ne kullukum raain na kullukum masulun an raiyati kenn ku nekk ci yéen sàmm sàmm la te dañ ko laaj la muy sàmm juróom-ñaari cër yooyu tey ñu ngi ci juróom-benneel bi muy alfarji alfarji nag buñ ko waxee mooy pëy alfarju buñ ko waxee mooy awra góor ak jigéen da ciy dugg ci laaya jooju ma jàng borom bi subhanahu wa taala dafa ne qad aflaxal muuminoon ñi gëm yàlla day texe nañu ñoo ñi gëm yàlla nag mu doon lim seeni melokaan bokk na ca melokaan yi seeni melokaan ña nga xane dañuy wattu seeni pëy lu dul ci seeni soxna ak seeni moomeel seenum pëy daal duñ ko jëfandikoo ci lu dul soxna walla mu nag moomeel ba moomeel di am jëfandikoo ko ci ñaari barab yooyu mooy soxna ak moomeel ku ko def kenn du la yedd waaye nag nee na ku weesu ñaar ñooñu na nga xam ne na nga xam ne jéggi nga daya wëtt nga foo wërta wëtt ci tool boo wërta wëtt yaa ngay ruur yonent bi sallallahu alayhi wa wax ci xadisam boobu yi ne ah képp ci yéen koo xam ni garantil na ma képp ku ma garantil li nekk ci diggante ñaari ŋaamam yi ak li nekk ci diggante ñaari tànkam yi danaa ko garantil àjjana li nekk ci diggante ñaari ŋaam yi xam nañ ko mooy aw làmmiñ li di li nekk ci diggante ñaari tànk yi xam nañ ko mooy awra moo xam ju góor la walla ju jigéen neena daal ku ko wattul ku ko wattul yooyu garantiil ko ko ba doo def lu ñu tere moom dana la garantil àjjana kon am pay a ngi noonu ba ñu jógee ci biir moom lañ ci teg ndax waxoon naa ni dañoo am rapport ñoom ñaar ndax kat biir bu feesee ak ñam ak ak ndox loola bari na lu muy xëcc boroom ci mu def xelam ci am payam ba tax na sax am pay danañ tudd ci li koy wattu bokk na ci li li la cay dimbali mooy ngay xiifal sa bopp di mar loola dana di dimbali ci nga mën a sàmm sam pay bu fekkente ni danga sangewuwul amoo soxna am pay nag danañ ko wattu ci mbir yi may bëgg a tudd ba ca jëkk gën caa am solo walla boog gën caa bari lu muy am mooy njaaloo wattu sam pay ci njaaloo góor gi war na ko jigéen ji war na ko moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ñu ne njaalookat waxuma leen bu leen ko def waaye bu leen ko jege laa wax maanaa ya cay yóbbu nit ya nga xam ne ñooy muqaddimaat ya ya nga xam ne waajtaay ya sax bu leen ca àgg waxantuma la di àgg ci moom wala taqrabu zina la wax daat cee teg ne innahu kaana fahishatan njaaloo lu bona bona bon la wa saa sabilan ca yoon wu bon itam la muy yoonu njaaloo ndax dafa mën a yàq ab société dañuy dem ba société boo xam ne njaaloo da cay bari mook société bàyyi ma ñooy yam kenn du xam kuy bàyyi kenn yaay moom fawuñu xam ko waaye kenn doo mën a askane kenn woy juram ànd ak nag lam mën a jur ci ay façon yi feebar yoo xam ne nii xam nañ ko sida baa ngi fekk yépp ak feebar yi nga xam ne maladie sexuelle la la koy waral lépp lu ci ëpp mooy di njaaloo di sëy sëy boo xam ne nii jaarul ci yoon kon ñu wattu am pay ci njaaloo waaye itam am pay danañ ko watt wattu bu dee ci jigéen dana ko wattu ci li ñuy wax assixaaq assixaaq nag mooy jigéen ak moroomam ñu fexe ba am seen bànneex ca pexe ya ñuy def walla jigéen képp moom képp mu jëfandikoo loo xam ne nii dana tax mu am bànneexam loola bu ko defee mooy wëttuwul am payam ki noonu am yi dañ ko war a wattu ci li ñuy wax amalu mi Luut waaw noonu laa koy waxee nag pour bañ a wax baatu al liwaat ndax jëf jooju kat di ko baat bi nga di ko di jële ci baatu Luut ca Luut nekk ab yonent loolu jaaduwul moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mësta jëfandikoo baatu al liwaat waaye man yaamalu rek amala qawmi loot kuy jëf jëfi euh, nitu loot loolu la daa wax waaye du wax kuy jëfan kuy jëf kuy jëfandikoo liwaat loolu tooñ yonent yàlla luut la baat boobu des koo war di moytandiku loolu mooy góor ak góor kookoo dees cee wattu war wattu am pëy ndax am pëy loolu taxu koo jur jóg te loolu ji la foo xam ne nii dara du fa sax danañ ko gis léegi jifu fu dara dul sax ab ab ab maanaa kuy nit doo ko def boo yoree saw jiwu danga koy ji foo xam ne nii boo ko fa jiwee nga mën a yaakaar ne dana sax niki noonu bokk na ci li ñuy wattu am pëy li ñuy wax al istimna wala ñu tudde ko al aadatu sirriya loolu mooy lan mooy nit ki fexe ba am man génn mu am bànneex daa jëfandikoo loxoom ba génnee man ni loolu lu tasaaroo la am ñoo xam nii sax dañ naan loolu kat dañ koy def ngir bañ a njaaloo waaye loolu ku ko def itam yaa nga dugg ca ñee ñi naan aaduun ña nga xam jéggi nañ dayo fañ leen yamloo yamuñu fa maanaam loolu kenn waru koo def niki noonu am pëy war nañ koo sàmm ci sëy ci gannaaw même bu dee soxna si nga moom si nga xam ne lew na la wala sa moomeel gi nga xam ne ba moomeel di am lew na la daa am foo sañ a moom waaye am na foo xam ne nii sañoo faa sëy moom mooy gannaaw sañoo faa sëy moom ca kanam rek la ngay sëy moom ndax foofa kat mooy tooba ga foofa mooy tooba ga ja tooba ga nag mooy fa nga xam ne boo fa jiyee ñu yaakaar ne dana sax waaye feneen fa loo fa mën a def dara du fa sax loolu nag du wane ne yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu ñëwee Madina ànd ak i saxaabaam yahudiya dafa am loo xam nii ñoom xëy na daanañ ko def yahud yi ne leen loolu day ku koy def boo juree doom day jël day jël day jël jël mooy lan bët bu jël buy xool fii day mel ne fële lay xool kooku la ñuy wax bët bu jël am na ñoo xam ne bu ñuy xool fii boo le xoolee seen bët day mel ne fële la ñuy xool loola yahud yi dañu ne nit ki bu sëyeeg soxnaam jóge ko ca gannaaw ca sëyeeg moom ca kanam nee na bu boobaa lu ca juddoo day jéll yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen déedéet loolu de aw fen la loolu de du lu am nit ki de bu fekkente ne day sëyeeg soxnaam wet gu mu mën a jóge bu jógee ca gannaaw ak bu jógee ca kanam yépp a yem la ci am solo daal mooy na ji ca tooba ga na ji ca tooba ga ndax nisaaukum xarsul lakum seeni soxna ay tooba lañ tooba lañ goo xam ne da fay ji faatu xarsakum anna shi'tum ak tooba nag buñ ko tobbee nii boo koy ji boo ko jógee ci wet gii baax na boo ko jógee ci wet gaa baax na wet goo mën a jóge fexeel ba li ngay ji rek nga def ko ci tooba gi loolu yonant bi sallallahu alayhi wa leeral leen ko loolu mooy ne liñ ciy jànge dëgg-dëgg dañuy xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul moo ki saxaabaam amul benn sujet bu ñu bàyyi amul liñ naan sujet tabou boo xam ne nii dañ ko dul laal lépp loo xam ne nii diine da caa war a am da war a àddu loola dañ ko war a leeral ak loola lu mu xat-xat nañ ko leeral pour ñëpp xam ko kon yooyu mooy yi nga xam ne war nañ cee wattu am pay bu ko defee nag borom bi subhanahu wa taala ngir mu def la ngay koo xam ne nii dangay ngay wattu sam pay jëfandikoo na ñaar tarxiib mooy di la xeemeem loo ak tarxiib mooy di la ragalloo ñaar yépp jëfandikoo ko na ko ngir rekk sa pëy mii nga wattu ko ba doo ci def loo xam ne nii luñ la tere la bokk na ci tarxiib bi laaye jooju ma ubbee woon léegi xadaf la xal muuminoon ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla neena yàlla neena texe nañ te ba muy lim seeni melokaan ak lañ leen di faye boole na ca ñi nga xam ne dañoo wattu seeni pëy lu dul ci seeni soxna ak seeni moomeel nee na ñooñu dey texe nañ ca seenug fay ëllëg mooy firdaws alladina yarisuuna al firdaws ulaika humul waarisuun alladina yarisuuna al firdaws hum fiha xaalidun ñooñu day ñooy ña nga xam ne ñooy donnu firdaws ëllëg ñooy ña nga ñoo fay sax ëllëg lu tax mu ne donnu ndax kat àjjana bakkan bu yàlla bind bakkan bu yàlla bind rek amoon nga fa place àjjana dafa yaatu lool waaye am na ñoo xam ne nii seeni place duñ ca dem bu ko defee nag place yooyee nga xam ne duñ ca dem ña fa dem ñooy jël seeni place booleeg place yooyee moo tax mu ne ulaayika humul waarisuun alladina yarisuuna alfirdaws hum fiha xaalidun kon loolu fay gi maanaam texe gi jar na wat sëmpëy waaye lañ lay faye ëllëg mooy dëkk firdaws ca firdaws mooy ajjana ji gën a kawe moo nekk fii wasatil janna huwa awsatul na wa alaaha moo nekk ci digg ba ba noppi gën caa kawe mooy fa nga xam ne arshu rahman gàngu naa sunu borom nga foofa la tiim moo gën a jeg fa ngay gën a jegee sa borom foofu moo moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa ne bu ngeen di ñaan ajjana nga lawaay bu leen tuuti bët ah na ngeen ko ñaan firdaws ndax firdaws du fees am na ñu bari ñoo xam ne nii waroon nañ fa am place te duñ fa dem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis boobu ma waxoon léegi moom itam tarhib la tarhib la tarhib la loo nit ki la ana ku may garantil li nekk ci diggante ñaari ŋaamam yii muy làmmiñ ak li nekk ci diggante ñaari tànkam yii ma garantil ko àjjana loolu xeemem bu ñu demee ci tarhib bi mooy xuppaate xupp nit ki ragal loo ko ngir mu bañ a jëfandikoo am pëyam ci lu dul noona danañ ci gis ay euh, euh, laaye yu bari euh, ak i xadiis alquranul karim nee na alxabisaatu lilxabisiina walxabisuuna lilxabisaat wattayibaatu littayibiin wattayibuuna littayibaat alquran ci suuratu nuur borom bi dafa nañu ñu bon ñi ñu salte ñi ñu taq ñi te mooy ñiy njaaloo way ñi ñu salte ñu góor ñi ñu taq ñu góor ñi ñu bon ñu góor ñi eh? foo leen fekk ñu bon ñu jigéen lañuy àndal ñuy def lu ñu wër sa def waaw ah. ku bon ku góor ku bon ku jigéen lay àndal ku bon ku jigéen ku bon ku góor lay àndal kon njaaloo ndeke lu bon a bon a bon la xabiis la lu salte la lu bon la mu ne wat wa tayibaatu li biin ñi nga xam ne nag dañoo sell nga xam ne du ñu njaaloo ñoom day ñoom itam ñu góor ña dañuy ànd ak ñu jigéen ñu ñu tee ñu sell ya ñu jigéen ñu sell ñaa tam ànd ak ñu góor ñu sell ñu sell ya ci xabiis bokk na ci li tax yàlla bind jahannama da koo def mu nekk aw aw ab fóotukaay walladina kafaru ila jahannama yuxcharuun nee na ñi wedd yàlla yàlla dana leen pang ëllëg dugal leen jahannama li yamiisa allahu alxabiisa min attayib ca loolee dugal gi leen di jugal jahannama lañ ca jublu lañ ca jublu mooy tàqatle lu bon ak lu baax bu ko defee wa yaj'al alxabiisa baadahu ala baad lu bon moom lépp da leen di tegale jóor ba mu nekk ab jóor comme foo demoon boo demoon fële sa mbalit ma da ngay dajale ba mu nekk benn jóor nga daal di taal wa yaj'al alxabisa baadahu ala baad fa yarkumahu jamian dajale lépp fa yaj'alahu fi jahannam daal dugal ci sawara bi mu tàkk kon njaaloo baaxul yonent bi sallallahu alayhi wa dañ koo laaj ne ko an aksari ma yudxilu naasa naar su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an akthari ma yudxilu naasa naar li ëpp ci liy dugal nit ñi sawara lan la loolu lañ bëgg nga xibaar ñu ko mu tudd ñaari faa alfamu wal farju mu ne gimiñ gimiñ nag buñ ko waxee xam ngeen ka tax ñuy wax mooy làmmiñ wa ca biir wal farju ak farj ñaar yii boo demoon ca waa sawara nga laaj lu leen fi indi ah, ñi ci ëpp benn ci ñaar yi moo leen fa indi wala ñaar yëpp indi leen fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba wax itam ci xadisam ne laa yazni zani xiina yazni wa huwa muumin nee na kii kii njaaloo njaalo bokk na ci ak mbonam ni waxtu wi ko nit kii def moom waxtu woowu ci waxtu woowu nekkatul ku gëm yàlla ah bu dee jullit itam ci waxtu woowu day mel ne dañoo yëkkati ak ngëmam moo tax muy njaaloo yal nañu yàlla defal ak dégg ak ak topp aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril alhamdulillah wasalaatu wasalaamu wa alihi wa sahbihi wa man mbokki jullit yi gannaaw xeemeem loo googu ñu yàlla xeemem loo euh, ki nga yool bi nga xam ne moom kiy wattu am paye moom lay am ëllëg ak xupp googu ñu mu ñu xëpp ngir ñu wattu suñuy pëy am na nag li lay mën a dimbali ci nga sàmm sam pay dañ ci tudd yenn rek bokk na ca raddul basar ndax tuddoon naa ko sajj sab gis di bañ a def lu nekk rek nga xool ko fexe ba sab gis ngay sajj say xef borom bi subhanahu wa taala daf ñoo wax ne qul lil muminina yaxuddu min absaarihim wa yaxfazu furujahum waxal ñi gëm yàlla ne leen nañuy sajj seeni xef waaw ca bañ di yónni seenu gis rek fu nekk mu jëm fa surtout jëm ci euh, euh, euh, ajnabiya koo xam ne ni jàmbur la ci ñoom jàmbur bu jigéen dellu wax ne waqul lil muminaati waxal itam nag way gëm yu jigéen ñi yaxdudna min absaarihinna ñoom itam nañuy sajj seeni seenu gis di bañ a xool ajnabi yi ah koo xam ne ni ab jàmbur la ci góor goo xam ne jàmbur la ci ñoom bokk na ca lañuy jëfandikoo ngir mën a sàmm pëy adamul xalwati bi bi ajnabiyati bul di wéet ak mukk koo xam ne nii te du sa soxna ca mën nga koo takk képp koo xam ne ni du sa soxna ca dagan na nga takk ko du dagan nga wéet ak moom dagan na nga takk ko ci tëkkoo ko du sa soxna bu ma ko waxee mooy tëkkoo ko waaye mën nga koo takk nag kooka waroo wéet moom waaye boo xam ne koo xam ne nii nag moom mënoo koo takk ngir ne dafa nekk sa ndey dafa nekk sa sœur dafa nekk sa bàjjan kooka moom waxuñu ko waaye ki nga mën a takk ca tëkkoo ko kooku bul di wéet ak moom kooku la ñuy wax ajnabiya yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nee na laa yaxluwanna rajulun bimraatin illa wa maaha du mahram bu benn góor ci yéen di wéet ak jigéen yoo xam ne nii ab jàmbur la ci moom lu dul ne jigéen joojee dafa ànd ak kojuk armalam daa ànd ak fareeram wala mu ànd ak baayam wala mu ànd ak euh, euh, euh, baayu taxam koo xam ne nii dal moom mahram la ci moom kojuk armal la ci moom ndax kooka moo koy wattu bu boobaa boo wéeteeg moom itam wéetoog moom ndax am na ku leen am na ku leen di wattu bokk na ci li ñuy dimbali ci ñu mën a sàmm am pëy adamu duxuli ala nisa di bañ a toog toogandoog ay jigéen di dugg ci ay jigéen bu ngeen gisee mag ñi bañoon loolu lool buñ nee fee mooy kër jigéen ñi du ñu bëgg kenn ku fa jaar loola diine la loola diine la maanaam góor muumul di toogan di dugg ci ay jigéen aaw jigéen yoo xam ne kër jàmbur nga comme niñ ko tàmmee fii nga xam ne dangay dikk rek dugg di wax ak jigéen ña dikkee loolu du diine loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere nañu ko nee na iyaakum wa duxuula ala nisaa bu leen maa ngi leen di wattandikuloo di dugg ci ay jigéen di fa waxtaan wala di fa toog bu ngeen demoon sax ba am ci ñoom soxla bu leen dugg ca kër ga na ngeen taxaw ca gannaaw miir ba wala ca gannaaw sàkket wa wa ida saaltumuhunna mataan fasaluhunna min warai xijaab na am na dox seen diggante waaye bu dem ba àgg léeg-léeg sax nga dem bu dugg ci néeg loola du diine ba mu waxee loolu kenn ca ansaar ya fa qaala rajulun min al ansaar afara afara ayta alxamu mooy bi waaw bu fekkente ni nag kii di dugg ci jigéen ñi dafa dafa nekk mbokkum ki nga xam ne mooy jëkkër ji maanaam nit soxnaam ndax ay rakkam ay fareeram moo xam yu ya ko mag wala ya nekk ci suufam ndax mën nañoo dugg ci soxnaam da koo laaj loolu mu ne ko afara aytal xam waaw ki nga xam ne nag dafa nekk jege ñaale boroom kër gi qaala alhamwul mawt loolu nag mooy dee nag moom loolu mooy dee waaw sa soxna frère waroo dugg ci moom te gis nañ jëye yi ci am toujours waaw sa yow daal sa baay ak sa yaay ak sa baay ak say doom laa wax yu góor mën nañoo wéet ak sa soxna waaye nag beneen jege ñaale amul beneen jege ñaale buñ ko may ñuy wéet sa soxna euh, bokk na ci li ñu ciy dimbali ba tey di bañ a xool awray keneen nit ñi dañ leen a sant ñuy sàng seeni awra ba sant waxuma sax awra ja ca boppam waaye la ko jege yépp dañ leen ko dañ ko war a sàng waaw bu dee góor la nekk ci awra ja xam nañ ko waaye ngir gën koo sàmm ñu ne la la commencé ca bëti wóom ba ba ca jumbox ba foofu dëgganul genn góor di ko gisal sa morom waxantuma laa nag jigéen nag jigéen moom ñu ne yaram wi yépp awra la ngir sàmme ko awra ji ji nga xam ne mooy al al awratul muxallasa mooy li ñu xam sañoo xool ci moom dara kon euh, xool sa awra yi moroom loolu mën naa yóbbu nit ci njaaloo laa yanzuru rajulu ila awrati rajul wala almaratu ila awrati almarati wala yufdi rajulu ila rajuli fi sawbin waxid wala uh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere nañu tere na góor guy xool awra yi moroomam ndiki doonu tere na jigéen ji xool awra yi moroomam niki tam genn góor wërta bokk ak geneen góor mbalaan wala yére loolu mënta nekk niki noonu itam jigéen du ko def ànd ak moroomum jigéenam ñu sàngoo mbàjj déedéet loolu lépp mën naa yóbbu ci nit ki ci loo xam ne nii wala tufdil maratu ila al marati fi thawbin wahid niki noonu lii tax ñu mën a sàmm pays bokk na ca ak tafriqu tafriqu baynal fil madaaja xale yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nit ñu seen doom yi bu ñu amee juróom-ñaari at na ngeen leen di jigal julli bu ñu jullee baax na bu ñu julliwul itam nag bu leen leen def dara bu ñu demee ba am fukki at nag na ngeen leen ko digal bu ñu defee baax na bu ñu deful nangeen leen caw ñu def ko te dañ wa farriqu baynahum fil madaaja bu ñu bokkati di tëdd bu ñu bokkati tëddukaay ndax bokk tëddukaay mën naa jur ay e, jëf yoo xam ne nii wërta nekk bu ko defee bokk na ci li ñuy sàmme li ñuy jëfandikoo ngir mën a sàmm pëy yi ba tey koor koor ak sëy ak sëy teel sëy loolu yi nga xam ne mi moom ci jamono jii dañu naan la ah précoce baaxul dañ koy tere dañ koy nàngam ca njaaloo bu précoce de moom terewuñ ko waaye sëy bu précoce la ñuy tere waaw sëy bu teel la ñuy tere waaye njaaloo bu teel moom terewuñ ko kon di teel gone yi bu ñu mënee am soxna nañu am soxna teel sëy de a sàmmu rek teel a sëy teel a sàmmu rek waaw yéex sëy boo yeexee ruur rek def loo wër def rek waaw nit ki noonu bu fekkente ne nag nit ki amul possibilité sëy ngir ne xëy na dafa amul la la sëy laaj ci Euh, euh, alal walla nangam bu boobaa jëfandikoo koor ngir mën a sàmm am payam yal nañu yàlla boole ca ña nga xam ne li furujihim xaafizuun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum yal nañu yàlla boole ca ñooñee yal nañu yàlla boole ca ñooñee bay lañu ci ñanga xane keroog àllaaxira ah, day wax ne gaayaa nga nele ulaika humul waarisuun alladina yarisuuna al firdaws gaa yaa nga ne lay ñooy donn kër ya ca firdaws ñooy ñooy donn firdaws yàlla nañu yàlla boole ca ñooñee boole ñu ci ña nga xam ne dañuy sàmm sunum pay fii eh, ngir mën a am pay googee ëllëg aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimin